nuyu Medina Médina à travers Dakaractu je suis content parce que si on dit le chanteur du peuple ma pour euh, wayal gala euh, pour la Medina, ça fait plaisir parce que Medina n'a ah Gorla la bu Bouamoual qui la bu am tout ci Sénégal surtout Dakar donc vraiment je suis choisir pour ma woy ko ça me fait énormément plaisir énormément plaisir. wa bi ma génne léegi dama leen le 7 incha ma def dinaa leen dog ñoom ñëpp man suma papa la ndax xam kila kila la kii la kii la yar ci bi nga am 6 ans bi nga am 6 ans ngay dem këram di nekk ak moom di dem këram di dem ba heure bi nga am 34 ans donc munu moko sax woowee di dër bàyyi koy sama papa la sama xarit la sama sama sama sama waay la sama waay la

fii mu bokk la man xam naa ci dara xam naa fii mu bokk fii mu bokk la en plus euh, jeunesse bi soo leen dimbali faaw nga yërëm leen dama koy wax tout le temps doomu aadama yi boo leen dimbali faaw nga yërëm leen te gis naa ni am na yërmande bi vraiment donc social bi baax na ci trop trop waaye nag euh, def na sama sama domaine waaw ah, def na sama mënin dëkk bi xam nañ loolu xam nañ ni le 7 mars bi benn benn fennay boy muy muy muy grand théâtre te Wally Seck ko yëngal am <laughs> c'est le parrain c'est le parrain c'est te xam nga parrain moom faaw mu ñëw moom sañ moom moom moom moom man sañ naa ah, jeunesse su Médina woolu ma pour ma tëgal leen muy seen leader ma invité ko mu ñëw toog bu keroogee lu mu xaaju ma xaaju lu ko raw waaw te duma ko may naada waaw waaw je vous donne rendez-vous euh, à travers une grande chaîne de télévision hein, sénégalaise. Dakar Actu en direct.